yëkkati sunuy kàddu ci turu ci ndigalu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké mi nga xam ne mooy jëwriñu sëriñ Souhaïbou radiyallahu taala anhu ni ko baaxoo defe bis bi nga xam ne mooy bisu sëriñ Souhaïbou nga xam ne ci la feeñoon jamono tam jotoon ndigal ci waajur mu tedd ba Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu taala anhu ci woote ko ànd ko ak mbokk yi ànd ko ak mbokk taalibe yi ànd ko ak mbo ànd ko ak mbokk jullit yépp mu jotee ndigal Cheikh Saliou ba léegi ndigal loolee mus koo noppee jëmmal saa yi bu su agsee dana ko woote ànd kook ay rakam ànd kook ay mbokkam ànd ko ay taalibeem def ko na ko na ko sëriñ sant woon ni niñ ko baaxee def nag ginnaaw boo xam ne woote nañ bis bi ñépp wusi ko ñu dundal ko ca maanaam gañ ko war a dundale dana dana dana dana dana baax na bu jàllee euh, mu yëkkati kàddu yu cant yoo xam ne da ko ci mbokk yi nga xam ne yëpp wuy si woon nañ ko ak ñu ànd moom ci bis bi bu ko defee nag kàddu yooyu nag da ko jaar la ci jëri jëriñam li nga xam ne mooy jëriñu kër gi di Cheikh Abdoulaye Cheikh Abdoulaye Mbacke drakam moom Cheikh Souhaïbou bu ko defee moom it mu jaar la ko ci sëriñ Abdou mi nga xam ne moo yor seen kàddu yor kàddu sëriñ Cheikh yor kàddu kër sëriñ bi gépp seen kàddu yooyu yëpp nag ak seen ndigal yëpp moo jaar ci ñun ñi nga xam ne ñun lañ dénkoon liggéeyu màggal gi ci taxaw ko ak saytu ko ba nañ bëggee ñu doxale ko noonu ñu doxale ko noonu loolu mooy kàddu yi nga xam ne war nañ ko yëkkati kon nag day mel ni ñu ñu doon saytu liggéey war koo seere daan laaj kàddu yooyu ñu béral ko kàddu yëpp nag kàddu yi rek la yoo xam ne mi ngi bàyyi ko ci sëriñ bi jëm jëm ci mbokk yi mbokk yëpp waaye nag bala ñoo soro ci kàddu yi cant yi dañuy nuyu ak a siyaara Cheikh mun Mountakha mi nga xam ne mooy kilifa ak yoon mur yëpp. di ñaan suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ba mbooleem naa li ak sumb yi mu am liggéey liggéeyal Seexul lépp mu àggale ko te ànd ko moom sëriñ baa ngi koy siyaara di ko nuyu bu baax a baax xam ngeen ne ni mu ba ni mu ko baaxoo rek màggal gi bala cee e, tàmbali dara wala mu ciy def dara dana dana dem ci moom wala mu yónnee ci moom e, sàkku ci moom ndigal noonu it la ko defar ren bi màggal jub see yónnee na fa e, yeesluwaat ndigal li sëñ bi joxe ci ndigal soññee ci bu baax a baax waaye jàpp ci baax a baax taxaw taxaw ci taxawaay bu mat sëkk ci biir ak ci biti kon nag kàddu jant yëpp ak kàddu ngërëm yëpp moom lañ ci jiital mm-hmm. taxawaay taxawaay taxaw taxaw na ci taxawaayu mm, Serigne Touba waaye taxaw na ci taxawaayu Serigne bu ndax moom ku ne xam ne ne mm, ku ne xam ne diggante ma Serigne Souhaïbou euh, moom na moom na Serigne Souhaïbou daan daan wax daan wax daan wax sax mooy mooy ab taawam waaw kon nag euh, loolee euh, doxe na ko waxee na ko ci kër gi ñu dem ba njëkk tey kon nag tey dafa rawati kon nag taxawaay yi nga xam ne taxaw na ko ci taxaw ko ci seen wet ñoom njabootu Serigne Souhaïbou Serigne Cheikh mi ko mi ngi ko sant di ko gërëm ci turu boppam ak turu njaboot suñu soxna gépp waaye di sant yi mboolem ñiy bokkal sëriñ Tuubaa yaakaar naa képp koo xam ne ñëw nga ci màggal gis nga ne kenn desul hmm. waaw njabootu suñu Tuubaa gi góor gi njabootu suñu Tuubaa gu jigéen gi kenn ku ñu ne bàyyi nga sa yitte ñëw ci bis bi fekk sëriñ bi euh, boole sa sa say say taraanga yëpp ngir ngir bokk moom bis bi ak wan ko ne ñoo ci yam kon ñoom ñëpp suñu bàyyi leen sant leen gërëm gis na taxawaay yëpp Euh, ñi ñëw te agsi moom ak ñi agsiwul ci moom ñëpp rek sant na leen gërëm na leen euh, xam na ne bis bi ñoo ko bokk xam nañ ko te doxa ko kon ñu ñaan suñu boom fay fayal ñu leen mm. daje sew xadim mm, waaye nii mboolem mbokk yi ñu ñu bokkal euh, ci wàllu mbàkke ci wàllu njaxate ci wàllu mbusoo bi ba ci seex yi nga xam ne ñooy magi mag ñi ànd ñooy seeti mag ñi ànd sëriñ bi ñoom ñëpp rek ku ci ne taxaw ko ci taxawaay bu mat sëkk taxawaay boo xam ne wane ne euh, kóllëre ak taalibe gi doxoon seen diggante ak suñu soxna sàmm nañ ko matal nañ ko seen diggante ak suñu soxna bi waaye nag sàmm nañ ko matal nañ ko seen diggante ak njaboot suñu soxna bi ñun ñëpp ñu leen ñu leen sant ñu leen gërëm bu baax a baax euh, sant kilifa diin yëpp kilifa kilifa diin yu bare bari euh, seen ndaw teew na fi du jar lim waaye kër yi diin yu bëree bari ay délégation yi jóge nañ fa ñëw ci bi ànd ànd ko ak sëriñ bi. Hmm, ndax ku ku ne xam ne sëñ Suhaybu ku amoon ay xalaa xale ci kilifa diine yëpp hmm, alaaxaat yooyu yaatu sax hmm, ndax fonk guñ guñ xamoon ne fonk na ku diine ak bëggum bëggum xam-xam daa tax borom xam-xam yëpp ak kilifa diine yëpp donte bokkuñ ci yoon yi joxoon ko wàccuwaay bu yaatu seen xol waaw loolu nag feeñee ci bis bi feeñee ci lépp lu ñu ko woote rek danañ gis ñoom danañ ko danañ ko ànd sëriñ bi kon euh, ñoom ñëpp sëñ bi sëñ bi sant leen gërëm na leen ci turu njaboot sa njabootu sëñ euh, waaye di sant sant sant di sant mboolem nag mbokk taal mbokk bi mbokk taal bi mbir nag yëpp bàyyiwu kenn euh, ñëpp ñëpp daanaka bi weeru bi weeru saxbaan rek laata màggal gi as waxtu wu ne yi dañuy dañuy dañuy tegaloo dañuy tegaloo bis bu sene yi ñëpp mboolem loo xam ne waral war na fi ci ay taraanga ak ci ak ak taxawaay lépp ñoo ñoo ko def mm. muy muy taalibe mbir yëpp kon maa ngi leen sant leen gërëm bu baax baax xam naa di di ci bëri cant nag euh, daara alxuraan yi ak daara kaamil ndax ñoom daanaka rek bu ñuy wax bu ñuy wax màggal suñu soxla moom ñoo ñoo ñu ci ëpp solo ndax suñu soxla ku a xam ne ne euh, alxuraan moo doon ab liggéeyam. Mm. Mm, ci la dundam gépp ci la ko jeexal. Euh, ni ñu ko xamee rek euh, ni ko euh, moom moom moom sëriñ sëriñ bi moo ko fàggaloon loolu ci ci bi ci biir ab liggéeyam mu liggéey mu liggéey la ko ci alxuraan mm, ginnaaw bi ko sunu boom fàggule nag mu bokk alxuraan lépp <laughs> bokk alxuraan weer bu mu wàcc bis bi mu dellu it ni ñu ko waxee léegi di bis di bis bi alxuraan wàcc mm, nga xam ne day mel ne loolu sunu boom di wax ci alxuraan sànq ramadan la si unsila fi alxuraan <coughs> dalli naa sa bayyinaati min hudaa yooyu damay wax ne boo boo boo dindi woon sax ramadaan ji teg si suñu son bi day mel ne wax ñu du yàqu ndax wax ñoo ñoo bokk mission hmm. kon nag suñu boom jox cëral ko waaye suñu ci war na faggul ci nag liggéey loo mu liggéey ci liggéey bu am solo loolu nag dafa feeñ ndax ci ci ci mbokk yi ndax bis saa yu bis suñu bi ñëwee rek daara yi ak daara kaamil duñu xaar sax ñu soñu leen danañ ci danañ ci woon a yéene yéene yu sëkk jàng ci lim yoo xam ne sax da jégg dayo euh, xam naa lim yi lim yi fi njàngoon moom da jéegul waaye maa ngi koy wax rek daaw daaw maa ngi jàllee li ñu jotoon a ay lim ëpp na fukki junni ak nangam ci ay kaamil nag loolu liggéey bi liggéey la am na ci daara daara yoo xam ne bu bis màggal jàll rek ñu commencé waat duñ duñ ko jëlal te te sax duñ ca duñ ca duñ ca duñ ca déglu ndigal duñ ca duñ ca duñ ca xaar dara waaw waaye nag loolu xëy na liggéey suñu soxna bi ci alxuraan la kon nag ak daara kaamil mm, ci njiital sëñ Mouhaban Mbacke moom Cheikh Amadou Fadal mi nga xam ne moom la sëñ bi di saytaloo lu jëm ci daara yi euh, sëñ baa leen sant di ko jaare ci moom waaye di ko jaar ci sëñ Bassirou Mbacke moom sëñ Abib mi nga xam ne moo jiite rabate bi moom it euh, taxawaay yu am solo ñu ngi koy taxaw bi ñu leen sant di leen gërëm baax baax ni ko noonu ni ko noonu kuréel kuréelu xasida yi moom ñoom ñëpp nañ ko waxoon ci woote ba rek euh, ca soññee ba sëñ bi jëloon li lépp tegoon ci loxol rakkam di jëriñam sëñ Amsatu Mbàkke moom moom Cheikh Souhaïbou xam ne moom la sëñ bi jiital ci liggéey boobu ñoom it taxaw taxaw nañu taxawaay bu am solo euh, lim yu bëree bëri ci ay ci limi xasida daje na fi yoo xam ne euh, kuréelu xasida yi fàccante ko ci ci Touba ak ak ci ak ci ak fudut Sénégal sax euh, jàng nañ ko lépp rek ngir ngir ngir addiyaar ko sëriñ bi waaw loolu nag lu lu lu rëy la ndax loolu rek mooy bés bi ndax bés bi moom ñaan la moo ci ëpp solo te te ñaan moom dafa am solo ndax isut daa isut daa yan fa mayital fi fi fil xubur waaye yan fa waaye wa yujibul ujur la suñu ci waxoon dana jëriñ ki nekk ci bàmmeel waaye yi ma ko yi ma ko la jëriñ si la ci des mm, mm, loolu moo moo moo moo ci am solo kon nag euh, daara yi ak ak kuréel xasida yi seen seen bi bis bi sëriñ bi rafet na ko rafet na bu baax baax Euh, bu ko defee nag di sant di sant di sant it mbokk taalibe murid yëpp dama ni ma ko waxoon léegi rek mm, rawatina rawatina ñi dëkk Touba xam ngeen ne ci wàccaay màggal gi am na yëngu yu bari yu ñu doon def ci waajal waajal waajal ko màggal gi moo xam ay ay mbale yi ñu fi doon def euh, yooyu yëpp rek mm, daayira murid yi nekk yu nekk ci dëkk bi ànd ànd ànd nañ ci ak kër gi mm, ci taxawaay taxawaay yu am solo ba wàccaay màggal gi li ci waroon rek ci ay yëngu ci ay taxawaay euh, ñu ànd ko. Mm, kon taalibe murid yëpp suñu baa ngi leen sant di leen baax gën gërëm baax baax xanaa da ci beral di ci beral cant rek taalibe taalibe kër gi nga xam ne ñoom bis bi ñoom eh, ku ñëw ku ñëw ku ci ñëw ku ne ñoom la ñoom la la jàppale hmm. ndax ñooy waa kër gi waaye loolu waroon nañ ko eh, keroog ba sin joxe ndigal ba tey ji noppale wuñ hmm, taalibe kër gi yëpp hmm, ak fi mën a bokk ci kër gi rek taxaw nañ tem ci ci ci ci ci waajal màggal gi ci waajal gan ñi màggal gi accès ñu mm, taxaw ko ba euh, gi fi ñëw ñu toppatoo la teral la euh, tegal ci condition yu baax te loolu nag mm, lu mu def sëriñ bi lañ ko defal waaye seen seen bopp lañ ko ñooy ñooy kër gi mm, boo ci yi nekk ak biir réew mi ak ak yi nekk bitim bitim réew yëpp sëñ si sant na leen gërëm na seen jëfit agsi na ak seen ak seen wax naa ko léegi bis bi lépp lu ci war rek ñoo ko def lépp lépp ñoo ko def kon nag euh, sëñ bi yëg na seen taxawaay baax a baax mi leen ñaan ak fi ma nekk euh, suñu borom sàmm leen te dëgëral leen te barkeel leen te yokk te yokk seen i xewal seen i bu baax a baax di sant yi nag mbooleem mm, mboolem mboolem mboolem comité comité bi comité d'organisation bi nga xam nag ñoom ñoo ñoo ñoo ñoom ñoo doon màggal gi nga xam ne ma mën naa wax ne lu ma ñetti weer yi ngi ne yoo xam ne noppaliwuñ daanaka ci jumaa de sa jumaa de saniye ba rajab ba saxbaan ñetti weer yooyu yëpp saxaloon nañ mm, semaine bu ne ajjuma ju ne ñu daje fii ci kër gi lépp ngir waajal bés bi ngir ak taxaw ko euh, xëy na euh, loolu ñu taari taari taari bi kër gi yëpp la waroon waaye nag ñoom ñoo ko féetewoo wuutu ji ñëpp euh, kon faaw ñu bari leen cant bari leen ngërëm mm, xam ne bis bi lu ci jàll lu ci jag ñooma lu ci lu ci rafet ñooma mm, kon nag kon si ñun ñëpp rek ku ci ne euh, xam nga taxawaay yi yi ngi doon taxawee euh, sant lañ leen gërëm lañ leen noppal noppal nañ ci noppal nañ noppal nañ ci sëriñ bi ndax taxawaay yooyu lu ñu ci def ñoo koy def waaw kon nag ñu leen sant di leen gërëm di leen ñaanal lu ñu lu ñu jëf rek sëriñ bi nangu ko te gërëm ko hmm, ci daraje sëriñ Tuubaa di sant nag mboolem autorité administrative yi nga xam ne ñoo nekk ci région région de Diourbel commencé ko ci euh, monsieur le sous-préfet bu Ndaam ak hmm, le préfet département de ak le gouverneur de la région xam nga ne màggal gi accès ni ñu ko baaxoo defee eh, bi ñu ko yëgalee euh, gouverneur convoqué woon na benn CRD ci Diourbel euh, seexoon ko ak chef de service yi nga xam ne ñoo aju ci région bi yëpp ngir waajal bés bi ak seet ni ñu koy mën a taxaw ak ni ñu koy mën a euh, jox yitte loolu it wax dëgg yàlla yitte wala soxla yi nga xam ne yëpp comité bi amoon nañ ko ci ci bis bi te mooy taxawaay yoo xam ne état état ñoo ko war a taxawee ndax ndax fu mbooloo di daja rek am na taxawaay yoo xam ne loolu wàllu état la wàllu wàllu sécurité wàllu santé ak yu mel noonu nga xam ne ñoom ñoo ñoo ko war a garanti loolu it mm, lañ tënkoon ci CRD ba te waxtaanee ko mm, xañ na mun mën a mun mën a def nañ lépp waaye la def nañ ci lu bari. Mm-hmm. Euh, war nañ war nañ war nañ seen yéene war nañ seen taxawaay mm-hmm. kon nag euh, suñu baa leen sant. di leen gërëm ñaan sant ko ba ci seen i kilifa ndax xam nañ ne lu ci def rek seen i kilifa la jógee daal ci ministère de ba ci njiital réew mi président kon sëñ baa leen sant leen di leen ci lu ci manqué xëy na xat-xat xat-xat la waaye xawaay xam nañ seen yéen rawatina rawatina chef de service seen yi nga ñoo doon ñoom ñoo doon jonjoo liggéey bi seen seen taxawaay sëñ bi sëñ bi sëñ bi euh, sant na ko sant na ko gërëm na ko hmm. waaye di ci bari cam nag monsieur le maire Abdou Lahad Ka mi nga xamne mom mom la seigne bi deug dëkk bi euh nga xamne mom day melne euh amna taxaway ci magal yep waye magal suñu sama daf ci raw ndax wax dal waxtu ne da ci day wone ne ci keur gi la bok euh ben serre du ko manki euh tay dina ci jëf lo xam sax da koy jëf ci nga xamne da koy jëf en tant que taalibe du ko jëf en tant que en tant que maire maire waaw. euh lépp loo xam ne sa war naa sooxe ci yeneen service yi nga xam ne dañoo war a taxaw ci màggal gi donte du seen wàll moom dana jël engagement fexe ba loolu du sooxe ci ci domaine yu bëree bëri loolu nag euh, xëy na ni mu ci kër gi la ci kër gi la waaye nag ak it ak it dëkk bi nga xam ne euh, dénk nañ ko ko waaye lu ci mën lu ci mën a xew daal wax dëgg yàlla taxawaayam rafet ko euh, ñoo ngi koy suñu boom mm, sàmm ko dëggal ko te liggéey bi nga xam ne kilifaam gu baax gi di suñu kilifa Cheikh Sidi Mbacke moom Cheikh Abdou Lahad yal na ko yàlla yàggal te wér ko moo ko teg ci loxoom hmm. euh, mu mu àggale ko fa ko fa ko fa ko sëriñ bi bëggee te moom njëriñu dëkk bépp waaye di sant mboolem ñi mu seqal euh, ñi mu seqal commune bi hmm, ci ay hmm, te dañ ko dañ ko doon jàppale dañ ko doon jàppale ci liggéey bi euh, nga xam ne waxtu wala ñoom ñu ngi doon nemmeeku kër nemmeeku liggéey fi mu toll lu ci nar sax am na ci loo xam ne moom dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko taxawee te moom te moom du ko yëg waaye daal seen taxawaay daal euh, sëriñ bi rafet na ko baax a baax ñu ñaan suñu def euh, lépp lépp lu ñu jëf rek sëriñ bi sëriñ bi nangu ko mm, bu ko defee xam naa di jeexal rek ci sant nag mboolem presse bi nga xam ne ñoom ñoom ñoo ñoo fi teew tey te seen taxawaay ci màggal te taxawaay am solo ndax màggal gi moom bu màggal wala màggal sax ci ëpp solo ginnaaw ñaan yi mooy fàttaliku ak tasaare njàngaleem ki tax ñuy woote ndax ku ñu màggal ku ne dañoo yaakaar roy ci yow dañoo dañoo yaakaar a euh, jël ay référence ci yow euh, loolu nag bu bu munta munta sotti te presse bi presse bi jàppuñu ci hmm, te xam ngeen ne bañ wootee bés bi ci avant première bi ba tey jii mboolem presse bi moo xam presse locale bi la xam presse bi la ñëpp jàpp nañ ci jàpp jàpp jàpp rafet rawatina nag presse locale bi nga xam ne seen taxawaay moom wax dëgg yàlla euh, taxawaay ba taxawaay bu kawe la mboolem mm, émission yi ñu fi waroon def mm, ba ci reportage yi ñu doon def ah, ngir waajale ko màggal gi mm, luñ ci soxla rek def nañ ko def nañ ko bëggee ba yaakaar naa màggal gi mboole ñu ko doon bàyyi xel li ko siiwal xam nañ ne am na ag ràññee bu baax a baax te loolu lépp nag seen taxawaay la kon nag kon nag bàyyiwuñ kenn ñëpp ñu leen sant ñu leen gërëm ci jàppale gi ñu jàppale ci liggéey bi ba ba àgg fi mu àgg di ñaan suñu boom dëgëra leen te barkeel seen kër ba seen liggéey it gën a yaatu tam nekk njariñul mm, dëkk bi nekk njëriñul réew mi yëpp ñu ngi daal ñu ngi ñu ngi daal di santaat mbokk taalibe bi yëpp santaat mbokk jul yëpp di santaat sunu sunu kilifa yi ci taw fi taw fi ju ñuy defal ba dénkuñu liggéey bi ñu ànd ko mbokk taalibe bi ndax loolu mooy mooy sunu njëriñ sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moom mm, kenn mun cee jariñu te euh, liggéey liggéey liggéey lawuñ la ci loolu mooy loolu loolu moo ci kon nag ku la jox taw féexe nga mën ko mën koo liggéeyal mm, dese loolu dara kon ñu ngi sant ñu ngi sant baax suñu kilifa yi euh, ñaan suñu moo yàggal leen fi commencé ko ci suñu euh, kilifa gi nga xam ne moo nekk ci bopp kër yi sëñ Cheikh Amadou Mbacke waaye mboolem ay rakam ñi ak jigéen ñi ñoom ñëpp war nañ seen tax taxawaay bu ma sëkk ci xam ngeen ne màggal gi ren am na bis boo xam ne dañ koo jagleel soxna yi nu ma ko fàttee wax mu njaboot suñu soxna bu jigéen gi ndax jigéen ñu bari dañuy dañuy fàtte ci ci yu mel nii te am ci taxawaay te ñu am ci taxawaay am solo nag moo tax bis bu nga xam ne mooy ibbi màggal gi ñu tànn ko di ko di ko di ko jagleel njabootu suñu soxna bi bu jigéen gi ren nag ñu jagleeloon ko suñu bajeen soxna am Xari Mbàkke tam sonn ci lool am ci taxawaay bu ma sëkk ngir xër ak xëram ci waajur mu tedd ba waaye ak ak ak ak fonke ak fonkeel te loolu war na war na ko ci bis ba yaakaar naa ñi fa ñëpp xam nañ mm-hmm. bis ba bis ba kawe na jot mm-hmm. kon moom soxna soxna Maam Xari ñu ngi ko ñaanal di ñaanal magam yëpp rakkam yëpp góor ñi ak jigéen ñi mm-hmm. ñu yàgg suñ kanam ñu yàgg seen ginnaaw yàgg ànd liggéeyal seen seen waaju tëdd yàgg ànd liggéeyal seen xadim te lépp lu ñu jëf nag seeru xadim nangu ko defal ñu ci lu koy njort jërëgeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yi ñuy waajal màggalu Serigne Souhaïbou gi daanaka këram dootu fa xam dara te bi muy sant nag sant na ñëpp dafa mel ne moom dafay fàtte boppam la ko waral it mooy ñor ko sëriñ Souhaïbou bu ñor ak tàbbi gum tàbbi ci biiram ab yëngoo ma ko dalam lépp di sëriñ Souhaïbou bu mu di ko liggéeyal ci ginnaaw kilifaam yi di sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké Souhaïbou bu mboolem njabootu sëñ Souhaïbou bu gépp kon Mbacké la sëñ Abdou Lahad waxoon ne ku liggéeyal sëñ di murid la wara a sant wala ñoo ñoo la war a fay kon ñun dongo yi nga xam ne ñoo àndoon ak yow liggéey bi ñun ñëpp ñu ngi lay jotali kàddu yi cant te di la gërëm bu baax a baax a Mbacké di seedal mbokki taalibe yëpp ak mbokki jullit yëpp fu ñu mën a nekk rawatina mboolem sunu kilifa yi mboolem taxawaay bu la waroon ci màggal gi taxawa taxawe nga ko ba ñun ñii sax am na loo xam ne yaa ñu ci doon wóotu kon mboolem koo jot li kàddu cant rek war naa wëlbati ko santaat la Mbàkke kon ñu ngi lay sant bu baax te di la gërëm di ñaan yàlla yàggal la fi wéral la àgg la sa yéene ci barkeb Cheikhul Khadim jërëjëf Mbàkke jërëjëf